Macky Sall euh, ba mbirum Gambie bi amee laataa moo yónni armée pour mu dàq Yaya Jammeh dafa génn ci benn journal ne Yaya Jammeh na jàpp ni ba àdduna di tukki du mën a am dëgg ci CEDEAO parce que dogal bu clair la ñu yor wax jooju laa koy delloo tey dafa génn ne Yaya Jammeh dafa war a xalaat ay jeexital yi nga xam ne euh, dëgër boppam mën na ko am ci dëkkab dëkk bi mën am ci karangem mën am ci kaaraange sous région bi dama koy delloo parole yoyu di continuer di njort ni nak que d'ici le 29 octobre à 23h59 au plus tard dana delloo ci xelam et que dana waccio ponku yeeg charte yi nga xam mom mo nek ci dogal bi conséquences juridiques yi euh, moy Sénégal démbu dégg ngeen euh Mali

Euh, ne du respecter respecté euh, may dalal sen xel lolou du am ci bii euh, du ci am parce que mbir mi bokkut fi tay ndeyu mbir bi nekul kaw ben nit mais dans am li nga xamné mom moy organisation bi moy droit électoral âme démocratie ñu xex samp ko fi gën ko taral gën ko jongal c'est moy yóbbu bu ko Sénégal respecté wul mën na am ay daan yi nga xamné dem ba flux économique et financier comme nous ko defoon ci Mali ba coup d'état bi di am aussi des xeetu qui mom moy lan mom moy mom ci bopam mën dem ba ko wala ñu ay parce que permettre parce que japp ni des fois